يرجون تجارة لن ñoo ngi santa yàlla sunu borom bi tabaraka wa julli ci yonente bu sallallahu alayhi wa sallam dellu sant sunu yaakaar cheikhul xadim ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen nuyu lislaam di jël nuyoo boobit di ko teg ci loxol alxalifa sëriñ bu Bousso mi nga xamee ne moom la yàlla teg ci njabootuk sëriñ Massamba Kanni gi mu jiite ko ci jiiteen woo xam ne ni jiite wu am solo la te rafet lool ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mu jottaleen ñu mboolem njabootuk sëriñ Massamba Kanni gi yépp nuyoo boobu mbokk yi kooku moom mooy sëriñ ak wala docteur sëriñ xaadim sinda dendeeg ñun nii ñu di ko nuyu bu baax a baax di ko ziyaara waaye di am mbégte lool waa daaira fataxul manaan wala fondation fataxul manaan gi yépp di am mbégte ci teew gi mu teew fii ñu santaat yàlla bu baax nag ci tey mu indil ñu thème bu am solo boo xam ne nii waxtaane ko ci sunu jamono lu mat di def la ndax sunu jamono ji day jamono joo xam ne nii li nga xam ne moom la fi gaa yu baax yi bàyyi woon rawatina cheikhuna cheikhul xadim loolu lu ñuy bëgg a naxasaay la wala luy bëgg a naxasaay la te it li tax ñuy nettali seeni jaar-jaar wala ñuy nettali seeni taxawaay yi ñu taxawee woon du dara lu dul ñu jëlee ci dars loolu la alquran di wax naan laqad kaana fi xasasihim ibra li ulil loolu moo tax waxtaane wi muy def wala tem bi muy def tem la boo xam ne nii bu mënta ñàkk la noo ngi yëkkati nuyoo ak siyaara bu mag jëme ko ci yéen di leen ndokkeel itam ci bis ak jataay bu mag bi nga xam ne moo ñu fi dajale te nu ci fàttaliku ku màgg ku bokkan ci góor yàlla yi laxasaay woon ànd ak Seexul Xadiim nekk jàmbaar ju ràññiku ci lislaam waaye ci biir kër Seexul Xadiim mu di sëriñ ma kenn Kanni Bousso ñu war a waxtaane nag euh, comme ni ko sëriñ bi waxee léegi tomb boo xam ne jamono laaj na rawatina nag génération bi nga xam ne mooy jiil al muasir jiilul jadid ci jamono ju ji ñu tollu te moo di yitte ju kawe waaye jël nag sëriñ Masamba Kan ni ay taxawaayam ay jëfam ab liggéeyam def ko nag muy namoo sëj muy màndarga walla misaal ci ku amee jikko walla ku amee yitte ju kawe nan nga war a doxee ci sa diine ak sa pénc ak lan moo war a doon sa taxawaay ci biir loolu loola nag euh, comme ni ko sëriñ bi ubbee loolu lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ci ne moo war a nekk sabab ak ay lay ñuy waxtaane góor yàlla gu fi jaaroon ba jàll ñu di ko fàttali ko ak a waxtaane gannaawam muy ni mu ko kaana fi xasasihim ibra li ulil albaab waaye maa kaana hadiisan yuftara walakin tasdiqa lasi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa uddan wa rahma li qawmin yu'minuuna aaya boobu dafa nekk aaya bu am solo ci jamono yee nag am ci baat bu ñëw boo xam ne suñ benn nijaay e, indi ko muy ma ne ko di vocabulaire la boo xam ne danañ ko dugal ci biir bamba gi mu di sëriñ Moustapha bu sëriñ Afia bi ñuy waxtaanee ca semaine euh, weer yee tell ci sëriñ Afiya te sant moom ma war a caa def taan damaa deman ci moom di muraajaa ak laablu ak wérlu yenn xissa yu ñu askanele ci sëriñ Afiya bi ñu demee nag ba àgg ci benn xissa am kenn ci ñi rekkan ca jataay ba bi ñu waxee ba àggal mu am num ko nettilee waaye am fob ba mu ca àggee suñu saani ko déet loolu moom ci safal-safal ñi la bokk <laughs> ne ma déet xaadim mu ah, ko bul ko bind ci safal-safal yi la bokk daan ni ma xanaa xamoo ne eh, tànk yu metti yii nuy dal ak yëfi yi yëpp safal-safal yi ñuy def ci togg yi hmm. moo ko ci indiwaay buñ yeman ca lañ baax woon a togg mu ne ma bamba jiitam lu baree bari ci sunu histoire safal-safal yi <laughs> saf-safal yi moo ko yàq mu ne ko ah loolu day alquran ak wax maa kaana hadiisan yuftara walakin tasdiqal la si bay na yeddi hadiisan yuftara nag mooy safal-safal mooy bol dolli ci lu ca bëggun ngir bëgg lu neex nit ñi waaye góor yàlla yi li ñu liggéeyal yàlla nett li ko doy na sëkk xarbaax doy na sëkk wàccuwaay doy na sëkk kéemaan doy na sëkk sëkk sëppitam lus di damoo kon loolu moo tax euh, fa tabarakallahu comme ni nga ko ubbee noonu rek la ukula naqsu alayki min anbaai rusul maa nusabbitu bi i fuaadaka wa jaaka fi asi alxaq wa mawisa wa dikra lil muminin fu nekk rek yàlla jàngale na fa niñ war a waxtaane góor yàlla yi ak lañ ca war a jëlee mu mel ni kon ah, danañu barkeelu rek tàmbali ci xamle ki ñuy war a waxtaane tey muy sëriñ Massamba Kanni e, ndax fàttali moom alquran moo ko santaane wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina ndax xëy na sax ci jataay yi fi jaar yëpp tey nit ñi mokkal nañ ko ci waaye nag buñ ci jaaree ak barkeelu rekk lay doon ñu xam ne sëriñ ma Masamba Kan bi Bousso mooy góor yàlla googu nga xam ne ñaar ñu tedd te màgg ñoo ko meññi muy sëriñ Bousso bi mu Amadou Bousso ak soxna Kanni Mbàkke mu ganee àdduna ci naawel 1878 xam ngeen ne imaam Maba Jaxu bi nga xamee ne woote na ji aadam jooju góor yàlla yim bokkal pas-pas yépp ci goxi Sénégal rawatina ci Kajoor ak Bawol ak ci Jolof ak Saalum gëm dëkk daf leen a woo ñu ñëw ànd ak moom xeex noonu yàlla yi ci la mag ñu bari gàddaaye woon bàyyi ko fi nekkan ci Bawol walla ci Jolof wala ci Kajoor dem fekki ko foofa sunu maam nag am Mouhamadou Bousso ak Maam Mor Anta Sali bokkan ci ñooñu bi jihaad ji jàllee comme ni ki nga xamee ne Mamor Anta Sëdi mi ngi installé woon Poroxaan sëriñ maam mu Amadou Bousso it mi ngi installe woon ci naawel gi nga xam ne moom it ci promesse su Poroxaan la nekk sorewul ak Poroxaan moom itam soxna kon ñaari wayjur yooyu soxna kan sëñ mu Amadou Bousso xam ngeen ne moom ak euh, maam soxna jaaratullahi ñoo bokk lépp waaye soxna kan itam sëriñ Mor Jee Mbàkke mi ko miy way juram sëriñ Ibrahima Awa Ñang moom maam maaram moo ko jur waaye way juram jigéen it di soxna Aysa Balla moom itam maam Balla Aysa mooy way juram kon ñu gis ne sëñ Masamba mi ci genn wet gi doomu nijaay la ci Cheikhul Khadim waaye ci wetu way juróom bu jigéen nag jarbaat la ci Cheikhul Khadim ñaari yoon ñu duppee ko nag euh, góor yàlla gu mag goo xam ne moo jàngal suñ Mbàkke Mor Anta Sëli waaye moo jàngal itam sëriñ mu amu bu sa mii muy sëriñ kokki Masamba Anta Thiébo mi ñu duppee sëriñ Masamba Mbakke ci wàllu njàngamit wax ne way juram moo ko njëkk a dalal mu barkeelu ca gannaaw bi mu jébbal ko magam sëñ Masamba Faati waaye gannaaw ba nag waajal gi ñu koy waajal te danañ ca dellu siwaat tax ñu jël ko nag yóbbu ko ci la dara maan ca sëriñ cumbuleen Mor Yaasin Silla foofa la àggalee alxuraanam làq fay ngërëmam ngërëmal ki ko doon jàngal ba mu fa jógee nag dellu ci way juram mu dalalaat ko xam-xam gannaaw bi mu jébbal ko magam sëriñ Mbàkke Buso mu toog fa ab diir jàng fa lu am solo waaye gannaaw bi nag ci ndigalal Cheikh al ak way juram mu bàyyi ko fa nag dem ci fóori ju mag ju mag ñépp taamu woon muy sëriñ Mor Galaay Jaw ca Njàmbur foofee la jànge ba dajal mbooleem fànni xam-xam yi nga xam ne moom lañ baaxoo jàng ak a jàngale ci Sénégal ak dëkki Afrique yi wër Sénégal te lay firnde jam mooy lettre bi mu bind Cheikh bi mu noppee daf ko caa xamal ne ko jeexal naa Cheikh al Xalil muy muxtasaru Cheikh al kon mboolem luñ lu ñuy jàngale ci daara jii kët ak di ko fi jàng jàng naa ko te ñun ñëpp xam dañ ne muxtasaru cheikh al xalil mooy muntaha waaye mooy nihaaya ci mboolem daara yii yëpp tey mooy téere bi ñuy mujje boo xam ne lu jiitu nga ti ci àgg lépp luy téere ya nekk ci suufam ci wàllu fiq tàmbali ci dax dari ba ca foofa da ko jàng waaye téere ya nekk ca suufam yépp ci wàllu tawxiid da ko jàng waaye téere ya nekk ci suufam yéppit ci wàllu luxal arabiya muy naxwu ak sarfu ak balaaxa da ko jàng kon mooy bi nga xam ne moom la ñuy ci daara yépp kon wane na ne kon ba mu àggee foofa kon mboolem xeeti fànni xam-xam yépp kon jàng na ko bi loola amee nag ci la fa bàyyi ko kon ci ndigalul sëriñ bi dellu siwaat ci way juróom way juróom nag nam def ay magam E mu def ko ko te mooy jébbal ko Cheikh al ci waxtu woo xam ne sëriñ bi mu ngi e, Mbàkke Bari yi kon diir la boo xam ne yàggu fa ndax xam nga sëriñ bi yàggul Mbàkke Bari ay weer la fa am nattu bi agsi waaye li muy gàtt gàtt wax nañ leen téere yi sëriñ bi njëkk a taalif muy Mawaahibul Quddus ci wàllu tawhid ak masaalikul jinaan bi nga xam ne mooy téere bi njëkk a juddu ci yoonu murit gannaaw bu sëñ bi defee ixlaanam ba ca Mbàkke Kajoor ci la ko sëñ bi taarif nee ñu yooye sëriñ bi jàngal na ko ko e, bi nga xamee ne nag loolu am na ba sëriñ bi dem ci tukki bi e, ba dellu siwaat xam nga yàggu fii at rekk xëy na la fiy am ndax 1902 la ñibbisi te 1903 xam nga la gàddaayaat dem gànnaar foofa nag li ñuy waxtaane nag foofa la tàmbalee ndax la jiitu woon lépp tey lañ ca mën a wax mooy ku ñu waajal la ci mu war a am yitte ju kawe ndax fi ñu ko jaarale ndax xam nañ ne ëttu ñi ko meññ ñëpp daara la yu ñu doon laxas ci mboolem gox yi àdduna yëpp ñëw di fi jàngale waaye bëgg koo teel a tarbiye nag jàngal ko nag nan lañuy ñuy dékkoo immatu rijaal boobu muy wax ca kaw ci wàllu ay coono loolu moo tax mënan naa àggale alxuraanam ci biir kër way juróom ak ci biir ay magam waaye ñu yóbbu ko cumb leen ndax xam nañu ne sa biir kër yi ñaari way jur yu góor ak yu jigéen boo fa nekkee am na tumaranke goo xam ne doo ca mën a àgg te am na ci loo xam ne comme nekk sa kanam nag ñu war la caa waajal fokk war nañ laa jaarale ci tumaranke kon loolu mooy yeen lay ñu yóbbu ko foofa ba mu dellu it xam nañ ne lépp lu mu soxla woon ci xam-xam mënoon na koo jànge ci magam sëriñ Mbàkke Buso waaye nag bëggaat ko tarbiyewaat ak joxaat ko jom ma waral ñu yóbbuwaat ko kër Seex Mor Galaay Sëy yi jaw ndax foofa tey mboolem doomi soxna yu bàyyi ko ci ay këri doomi soxna yu bari la fay dajeel kenn ku nekkit am lu fa yëkkati kenn ku nekkit bëgg sa moroom lañ fa yut da la ko ëppalee kon mu nekk course boo xam ne foofa it himmatu rijaal dafay feeñaat ku yaafus sa moroom jiitu la waaye moom mu feeñal fa maanaa loolu muy wax xul wali imma ba lañ fa war a jële lépp mu jële ko waaye loolu lépp nag ci kilifteefu ay kilifaam lañ war waaye nag bi sëriñ bi dellu see nag gànnaar fekk way juram wàcc na ab liggéey fekkit booba am na lu romb ñaar fukki at ak juróom wala lu ko mat sëkk bokk kon nekk mu kallaf nag moo xam ne li des ci nag ak dundam mooy déterminer nag destin mooy fixer ay objectif am mooy xool nag lam bëgg ak fa mu bëgg àgg kenn du ko décider la boofa nag moo waral nag mu jël décision ferme bu boppam fekk Sayxal Xadiim ca gànnaar yeesal nag jaayante ga jëbbalan nañ ko ko waaye nag lii nag ci propre volonté la ko def te mooy yeesal nag ak jaayanteem goo xam ne moom ci volonté boppam la ko defee nga gis ne kon foofa la loola tàmbalee mu bind ci xasiide goo xam ne ca biir jaayante ga wane na mustawa bi nga xam ne am na ko ci wàllu xam-xam ak ci wàllu maarifatu billah muy xasiide goo xam ne bi mu ko ubbi ko muslu seytaane tudd sunu borom subhaanahu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne aslamtu lillahi taala sarmadan kulli ma alqadimi summa ahmada lahoo wahabtu bilqadimi wa rasul kulli wa ma li gayri i rumtu usul waaye lu jiitu ci loolu sax dama bëgg dana ci dellu siwaat waaye ñu waxtaane li ñu jéem taarif lan mooy immatu rijaal ci boppam lan mooy ulluwul imma ci boppam ak nan la ko sëriñ bi jàngale ñu doog a dellu siwaat ci suñ bàkki bi sëñ sëñ Masamba Kanni ulluwu rijaal maanaam ulluwul imma wala al himma al aaliya góor yàlla yi surtout al mutasawifoon firee nañ ko nu ne waaye ci tënk rek mooy toolu sunu borom subhaanahu bi nga xam ne wër yàlla ya tàmbale ci sa abat rasul ba ña topp ci seen gannaaw ci salafu saalih ca lañ doon xëy te kenn ku ci nekk nag la lay may ab cir ak wàccuwaay ci sunu borom di la may payug ëllëg muy saadatu yi ni texe ëllëg ak teraangay àdduna kenn ku nekk kemtilaali sa yitte ak sa taxawaay ca tool ba moo la koy may tool la boo xam ne góor yàlla yépp ca la ñu xëy képp ku am wàcc waaye ak ngërëmal yàlla ak a wut ci biir saadatu daaray ni ci biir tool ba nga koy wute kenn ku nekk nag kemtilaali nu sa yitte ak sa taxawaay ak say jëf tollu naral la ngay am ca biir tool ba toll léegi nag su ko defee lan mooy ulul ilm mooy tool boobu nag loolu ñu wax lépp nag ne mooy añub tool ba nga bañ koo jombale sa bopp nga bañ koo jombale sa bopp lépp loo xam ne lu ci yitte ak taxawaay da koy may nga bañ koo jombale sa bopp loolu mooy li jiitu ci ilu ulul imma waaye boo ci noppee nag nga tobbil saw bopp aw sas woo xam ne du yées wenn sas woo xam ne ña la jiitu woon tobbil nañ ko ci seen bopp muy ñaar bu ñetteel ba nag boo noppee nga tànn nag ca biir ña la jiitu woon te bayeen seeni sas ba yàlla fayee leen ca lam leen ca fayee nga tànn ca këla ci gën a doy def ko muy sa jëwriñ muy ñett kon ñett yooyu mooy mandargaal xolluwul imma léegi nag bu ñu àggee sëñ Mbàkke sëñ Masamba Kan yi danañu xam ndax fii la jaar walla déet Seexal Xadiim nan la xolluwul imma ci biir njàngaleem Seexal Xadiim ak orientation yan la jox ñi la xasaayu ànd ak moom wa imma tarfa kullaha lil xaqi allahu akbar wakil bi isin laa tamil lil xalqi la seexal xadim wax nee na yow mi la xasaayu ànd ak man na nga yëkkati mboolem sa yitte yépp bul ca bàyyi dara jëmale ko ci yàlla te bul sukkandiku ci kenn mbaa lenn ku dul yàlla laa tamil lal xalqi te boo dëgmalee yàlla bul gersu jàll waxaat faneen foo xam ne ah dafay bañ ku jël sa lenn ci sa yitte lee nga jox ko yàlla lee nga jox ko lee lee nga jox ko kee mu ne déedéet wa himma mar wa imma masrafa naha waxut imma gi gi yor daf ko jam u wal imma masrafa naha lil xaqi subhanahu laa taltafit lil xalqi sëñ ma sàmba kan yi mii ñoom dañoo aman tawfiixi ak ñeneen sëñ Mor wax ak kan sëñ Moussa Alima Gueye dañoo bokkanti ñi nga xam ne dañoo aman tawfiixi sëriñ bi téere yi nga xam ne mooy li mu bind ci biir bi mu nekkee ci géej gi xam nga sëñ bi amutoon secrétaire xam nga kenn laajagul lan moo tax sëriñ bi doon secrétaire bi mu nekkee ci biir géej gi lépp lu mu bind moo ko doon bindal boppam ak ni mu toll te pour nga gis ci benn téere képp bu ma sëkk boo xam ne sëñ bi moo ko bind même ci kàggu yu mag yi ndax yomb na ay kayit ngay gis de ne ay kayit ngay gis aw koy wala ñaari koy wala ay pegg waaye loolu mu bind nag muy nekk ay jimbalang lan moo ko andi ci suñu loxo yi xam loolu laaj la boo xam ne iskaaliye la te kenn xoolu ko woon loolu nag ñi ma la wax ñi ma la wax ñoom la sëriñ bi doon def bis benn bu nekk mu jël ay jimbilang jox leen ñu sotti ko bu takkusaane ñu andil ko ko sëñ Cheikh Baba Sylla mii nag mook suñ mor mbàkke doj dañ faa nekkan ñu seexale suñ mor mbàkke doj moo ko nettali li may bëgg a wax da ko ne biñ ñuy yabal ñun ñii ñu ñëw mu ne ko man ak sëriñ ma sàmba mbàkke sëriñ ma sàmba kanni sëriñ fallu ak cheikh mouhamadul moustapha ne dani ma dafa wax ne fàllilu bu ngeen demee ba ci sama kër ga ca Touba ca koñ ba féete penku ca wetu bëj saalum ga da fa tàmbalee di tari suuratul baqara ba àgg ci aaya fukk ak juróom ñeen juróom ñeen fukk ja fastajaaba lahum rabbuhum ani laa udiyu minkum min zakkarin aw unsa baaduhum min baadin ba àgg ca walillaahi xinda oo uslu sawaab mu ne ko foofee boo àggee foofa fu mu la fekk na nga gas ba sa tikku jara xaj ca nga tufli fa lool yi yéene ci nag diirub nga di fa nekk yaa koo fa nekkal li yàlla bëgg lépp na ngeen ca sax li muy bañ lépp ngeen moytund ko te yàlla na fa defal saadatu daara yi mu nekk nga rëdd ko def ko jàkk nee na daal di wax mu amadul ma suñ Modou Moustapha ne ko yow itam mm. ci koñ bi féete penku yow tàmbalee fa boo demee ba jàgg ay ba àgg ci loo foofu yow it na nga def noonu daan ne Masamba Mbàkke mu naa ma ko yow itam foofu Muudu Moustapha ci koñ bi koñ bi féete bëj gànnaar Muudu Moustapha mu dafa tàmbale jëm penku yow na nga fa tàmbale jëm bëj gànnaar boo fa àggee nga def nii te tudde ko daarul kan yi ne Masamba kan ni yow nag teg sawu ba ca ma Masamba ca koñ boobee na nga fa tàmbalee tudde ko Daaru Xadim saw sawu gànnaar bi oh. gis nga ko ay xoolal aay bi mu leen wax oh. nga xam ne da leen de kenn ku nekk na na tàmbalee fii ci aay bi bu àggee ca wallaahu walilaay indo wala indo usul ma ab ji eh, walilaay indo usul sawaab nee na foofa nag fa lañu xoolal sirru léegi bi ma ciy def ay enquête mooy cercle bi wër Touba juróom-ñaari kilomètre fii ne boo demee fi kër Touba bi boo ko nattee ba fi suuf si yem waxuma dëkk bi de fa suuf si si mu bor yem ndax kenn ku ci nekk dalaa wax ne la boo defee loolu ba noppi pax moomee na nga ko rëdd def ko néegub yàlla wut ab dëkk waaye ca sawoom boo noppee nag ngeen wut barabi liggéeyukaay kenn ku nekk nag boo seetee fa sa barabi liggéeyukaay yem mm. fii ne boo seetee ndindi hmm. fa mu diggaloo ak keere mbay hmm. juróom-ñaari kilomètre la diggam ak ak ak ak kër gi ci jubaa ji tindoo di noonu hmm. daaru salaam noonu saamu Mamor Jaara fa mu diggaloo ak Sëñ Mor Fati Touré noonu daaru da fii boo ko seetee loolu lay doon muy cercle bu njëkk bi juróom-ñaari kilomètre la bi ci tolluwaat juróom-ñaari kilomètre muy muy juróom muy fukki kilomètre ak ñeent yaari juróom ñaari ñeenti cercle ya ca toll tollu kuwaat muy muy muy mesra Daarul Muxti vingt-huit kilomètres di li mu arrêté Touba Taïf jëppuñ ci ca taw vingt-huit kilomètres di li mu arrêté Touba Daaru Salaam Gàlle ak Daaru Rahim kër Sëñ Mor Talla Fall jëppuñ ci saw vingt-huit kilomètres diggam ak Touba boo jëlee ci bëcc bëcc Saalum ba fa sëñ Basiiru yam fa tooli sëñ Abdou Akim yam fa la vingt kilomètres yam muy vingt-huit kilomètres yoo xam ne bu dëkk bi doon màggit lu màgg-màgg du enclavé dëkk foo xam ne nekkul ci biir autorité yoon loolu muy lu yéeme eh, <laughs> loo xam ne eh, mbootum sëriñ bi la léegi nag mu ñëw sanc fi dëkk bi bind ci xasiida gi mu ci bind te dañ di ko jàng daarul xadiim araf wenn wu nekk mu taalif ci aw bayt da aani rajaa i li baaxil xadiim karimin mujibin muridal xadiim muy xasiida gu yéeme goo xam ne wane na ca dëgg-dëgg li taxan sëriñ bi yebal ko fi muy loo xam ne kon fa tabaarakallaahu ah yitte daal mënta kawe lii ci ay taxawaay ak i jëfam kon nag li ci des nag ah loolu moom dama koy yalwaan yéen waa daara ji yéen a ngi ci nag bu baax a baax ndax ah, conférence bi ngeen defloo sëñ Bakki Diop Xudar ci dundal ndodal mag li wane na ne yéen a nga ca dajale gi ngeen daje it lim bind ba yónnee ma ci lu bare bari wane na ne waaye nag li ma bëgg ngeen dolli ko ci mooy gise naa ci ay bind yu yéeme yéene ci mboolem xeeti xam-xam yëpp ci wàllu taw it du mat sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ak aqiqa bu mat sëkk ak talaazum ak takamul boo xam ne équilibré bi mu équilibré woon sariya ak aqiqa ci ay waxam ak i jëfam ak i mawaaqitam yëpp gis naa ko ci biir xasida yi lool nag lu ñu war a génne la lu ñu war a génne saraako bu yaatoo yaatoo yaatoo parce que xasida genn gu ci nekk lettre la lettre de mission la boo xam ne yóbbal la ci ab bi ndax lam war a jox yàlla lépp dana ko jox ba mat sëkk lam war a jox yonent bi mu jox ko ba mat sëkk li mu war a jox Seexul Xadiim mu jox ko ko ba mat sëkk li mu war a jox ñim bokkal di wut yàlla kenn ku nekk mu jox la cër bu mat sëkk loola nag lu lu rëy la loo xam ne yitte ju mag féete ko kaw mm-hmm. ak bi ñu nekk tey kon yàlla nu yàlla taas ci barkeem mm-hmm. eh, te jariñu ñu jariñu ab liggéeyam mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf docteur ci kaddu yu am solo yooyu nga xamee ne jàllale nga ko fi bu nekk waxtaan woo xam ne nii day mel ne eh, waxtaan la ci la ma waxoon ci tàmbalikaay bi ne docteur buy ruta buy waxtaan dafay naqare taaliqan ci maanaam ay dars yooyu jox ñun ñun jàngkat yi ci ci ci ci maanaam baat yi nga xam ne buñ koy bind dañ koy faral di daw loolu lu am solo la sëriñ bi docteur eh, ndax ndax ñun ñu toll ci ci xeeti baxsa yu mel noonu boo ñu ko joxee loolu dañ ci dëkk te dañ ci jariñu bu baax a baax a baax a baax rawatina nag ñu ngi ko layalee ci layale ñu dëgër boo xam ne ni da koo teg ci mooy mooy mooy loo xam ne nii lu lu naqaree dindi la leneen li ci des it moom mooy xamle gi mu xamle sëriñ Massamba Kane ni ci ka aalim aabid aamil koo xam ne nii aalim la ndax mbooleem xasaayid yi nga xamee ne bind na ko nga xamee ne lépp ay njariñ la yoo xam ne ni benn bu nekk boo ca delloo dangay gis ni kii ab boroom xam-xam buy wax la te loolu nag mooy lim ñu soññee nii ta ñu war a cee gën a bàyyee xel bu baax a baax a baax a baax jortu naa ne nag kilifa yi nekk ci biir kër gi ñu ngi lay dégg bu baax a baax a baax jortu naa ne lu ñu war a bay la rawatina laj na saqaafa yi ci ñi nga xam ne ne ñoom ñooy kilifa yi ànd ak ñoom kon kàddu cant gi sët yi dañoo waxoon ne nañu sant mbooleem jabootug maam maaram gépp ci seen taxawaay jamono bu nekk saa bu ñu leen woo ci bisu fàttaliku bi ak ñaan bi ñu defal sëriñ ma Massamba Kanni kon ñu ngi sant njabootu maaram gépp bàyyiwuñu kenn waaye nag dana am ñu ñu tuddaat ci biir njabootu maaram bi ñoo xam ne dañ leen di jagleel seen canti bopp ñu jiitu ci ñooñu mooy njabootu sëriñ bu sóobe ak sëriñ saa ñu ngi sant ñëpp di sant kër yépp di sant daaira yëpp waaye ci biir loolu it di beralaat cant goo xam ne ñu ngi ko jëme ci ñaari kër yi nga xam ne ñoo seq bis bii muy kër sëriñ Masamba Kanni ak kër sëriñ Mbàkke Kanni ci njiitul Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moo mag ci ñaari kër yëpp di sëriñ Fallou Bousso moom sëriñ Mbàkke Kanni di ñaan sunu boroom gën koo dolli ak wér te gën ko fee yàggal waaye naka noonu it ci turu Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne moo nekk ci bopp kër Serigne kenn yi di ñaan sunu boroom dolli ko ak wér te gën ko fee yàggal sët yi di Fatxul Mannaan wax na ne ñu ngi sant ñoom seen kilifa yi nga xam ne ñoom la sunu borom teg ci seen kanam muy jur yi ci ni nga xam ne jàppandal nañ leen ko mbir yi ba lépp loo xam ne gis nañ ni luy jëmale kanam ak luy dundal jëmmi sëriñ Masamba Kanni la te jàpp nañ ni ñoom ñoo ko gën a mën a taxawee bàyyee nañ leen ko ànd ca ak ñoom nañ ko bëggee nee na loolu ñu ngi ciy sant seen kilifa yi bu baax. wax nañ ni ñi ngi sant dongo yi nga xam ne dañoo aju ci kër gi te jamono bu nekk ñuy ànd ak ñoom bépp yëngu boo xam ne ñu ngi koy yëngu lépp lu aju ci kër gi tey xidma suñ leen ci woo ñu wuyu si leen ci ak fu jamono ji mën a toll nee nañ ñi ngi sant njaboot googu ndax ànd nañ ak ñoom na seen waay jur ya ak seen maam ya ànde woon ak sëriñ Massamba Kanni ak njabootam sant nag mënta weesu sant koo jot kàddu cant rek na xam ne fu mu ko natt ci ak kawe romb na foofa wax na ni ñu ngi sant mbooleem dëkkandoo yi nga xam ne it rafetal nañ lool seenu dëkkin fii ci Daaru Xadiim nga xam ne lépp lu ñu leen yëgal daañu wuyu si daañu ànd ak ñoom ñoom it ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di ñaan yàlla mu fay leen gën ci pay di sant it euh, maire Abdoul Ahad wax nañ ni ñu ngi koy beral ak cant ci taxawaayam ci bis bii lépp lu ñu sàkk woon ci moom defe na ko nañ ko sàkkoo woon taxaw na ci courant bi làmp yi nga xam ne dafa yàqu woon lam ci mën a defar defar na ko taxaw na ci ndox mi dafa manqué woon yebal na fi otoy ndox yebal na fi it ay otoy vidange yoo xam ne dugg nañ ci yenn kër yi ñu mën a dugg def fa lañ mën a def loolu nag daayira bi nee na ñi ngi ko ci sant waaye cant gi ñi ngi koy jaarale ci koo xam ne kenn la ci mbooloo mi di liggéey ak moom di sëriñ baabakar Mbacke moom sëriñ Jóobu ndax bi mbooloo mi soxlaa ci moom lañ jaar te xëy na jaar giñ jaar ci moom moo jàppandale mbir yi nii mu jàppandee kon cant gi ci moom lay jaar mu jot li ñu ko Abdul Ahad moomu kon sëriñ Babacar mbooloo maa ngi koy sant ci turu famille bépp ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci seen diggante ak maire Abdul Ahad Ka ba liñ soxla woon ci màggal gi lépp mu defal leen wax ne nii ñi ngi sant mbooleem presse bi bi bi si jubsee ba léegi fu ñu leen woo ñu wuy si lépp luñ jàllale te muy njariñ ñu tisaare ko ba àdduna di sant soxna yi nag ndax buñ nee sët yi day yóbbaale góor ñi ak jigéen ñi moo tax ñu tënk ko foofu waaye soxna yi seen yitte kawe na lool seenu taxawaay rafet na lool dañuy foog ay guddi yu bari di yendoo di yendoo ay coono di xiif di mar di xuus ci naaj wi ak ci ngelaw li lépp ngir bis bi rekk jag kon ñooñu ñu ngi leen di sant ñoom it cant goo xam ne ñu ngi koy seereloo yàlla waaye di ñaan seen maam mi taxoon ñuy def yàlla na leen fay ngën ji pay gone yi nag nee nañ muy sët yi seen biir nag man bu ma nee gone yi maa seen biir ñu ngi soññ seen bopp ci ñu góorgóorlu fexe ba nag kenn ku nekk ci ñoom mu jéem a tabax avenir am te bañ cee xaar kenn bañ cee séentu yu ndimbalul kenn ndax jamono moo toll foofu loolu nag ñi ngi soññ ñi toll ci jàng ñu continuer seenum jàng te xam ne jamono toll na foo xam ne xam-xam képp moo koy conduire lii sëriñ Xaadim doon yalwaan muy xamle ma Masamba génne liggéeyam ku xamul dara mënu ko kon ñi ngi soññ ñi tollu ci jàng nañu jàngi ñi toll ci war a jàng maanaam ñi toll ci jàng nañ continuer seenum njàng te farlu ca te bañ ko gàttal ñi toll ci war a jàng te jàngeeguñ ñi ngi leen di soññ ñu jàngi sët yi nañ ñi nga xam ne jànguñu yi ñi ngi yëngu ci leneen wala ñi ngi ci leneen ñi ngi soññ ñooñu kenn ku nekk ñi ngi lay soññ ci ñu gën a farlu ci li Sëriñ Tuubaa doon jàngale te mooy talabul xalaal wala kasbul xalaal bañ a xeeb dara lépp loo xam ne rek gis nga ne lii ci cadre l'islam lu dagan la loolee loo ca mën a amee ne ca ndax li sëriñ bi doon wax soo bëggee am indépendance ci wàllu financière ci wàllu alal am liberté ba mën a sàmm sa ngor jafe na lool nit ki am loolu te fekk góor góor luwul nekk ci loo xam ne dana ca mën a fàggoo lu muy dunde ba mën a sàmm ngoram ci yi nga xam ne day xew ci jamono li sëriñ bi daan wax ne ku la mënal sañal la te su boobaa yàlla na fekk mu doon kala war a sañal waaye di soññaat bu baax a baax a baax daaira soppe sëriñ lu Mbàkke bi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi ci njiital sëriñ Jili loo nga xam ne itam saa bu ndigal jógee ñu daal di mu daal di bu soññee rek ñëpp daal di jóg ñëw ànd ak waa daayira Hadayatul Fadail di soññaat bu baax a baax a baax itam kuréel association bi nga xamante ne mooy ànd defar sunu gox bi Serigne bàyyi Serigne Ndiaye jiite ak Soxna Daba Gueye nga xam ne diirub bi ndigal li yegsee ci nun ba tey ñoo ànd li nga xamante ne mooy liggéey bi waaye di soññaat bu baax a baax waa daaira eh, ahlu café bi nga xamante ne sëñ Modou Diop mooy jëwriñ bi te ngeen gis leen ci baas bi lépp loo xamante ne ay xéewal la rek ñu yor ko di ko di di di ko di ko di ko di ko di ko di ko sédd di ko joxe ñooñu itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay bu rafet waaye di sant bu baax a baax ak di ñaanal nag Cheikh Mouhamadal Fadal mi nga xam ne bi nga xamante ne nekk na ci bopp njabootu sëñ Massamba Kanni ba tey saa bu joxee ndigal day boole a nekk ca kanam daaira bi nga xam ne lépp loo xamante ne waa daayira ba nga koy jëf rek moom ñoo ma ko ànd te nag mënoon naa joxe digal rek daal di toog fa mu toog la cay firnde ji rek mooy jum liggéey bu tedd bii nga xamante ne moo ne ci suñ kanam mooy jumaa ji jumaa ju mag jii kon nag ñi ngi laase message ci mbooleem ta taalibe boo xamante ne aju nga ci kër gi ngir yàlla nga damoo bokk ci daayira sëñ soppi daayira dayaqul fadail bii ndax kat mooy doole yi moo war a doon dooley kër gi moo war a doon dooley kër gi te képp koo xamante ne doxewoo ah, ci anam boobu ci kër ci sa kër itam danga gis danga nga dëkk keneen koo xamante ne ma ngay dox la ko war ci këram wala sax nga ñee ko ca doxin wa muy doxe ca këram kon nañ xam ne képp kuy jëggaane kuy kuy wàllu yaanekat sa dëgg daa sa sa kër daa tëggul nañ am pësteef ci li nga xamante ne mooy kër gi sëriñ bi nee nañu nag nañu sant jaarale ko ci ndigal li mu jox sëriñ naa mii Cheikh Mouhamadunil Muntaxa ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér bis bii yitte woon na ko ci anam goo xam ne ñun ñëpp sax euh, yéem nañu at mu jot lu mu xat-xat lu mu yàgg-yàgg dana fi yónnee ndaw délégation boo xam ne ay njabooti boppam lay doon daaw dafay yebaloon sëriñ aboo doomam mu ànd ak sëriñ Mamoor ànd ak sëriñ Muntaxa moom sëriñ Modou Bousso Dieng ñu ñëwoon fi teewal ko fi tey jii noonu la fi yónnee waate ndaw te moo ne ma ngi ko fekk fatu nga xam ne yeex nañoo sax yegg ca moom dëgg ngir fatu gi mu fatu woon waaye terewul bi ma ko yëgee rek la daal di yabal sëriñ Mamor doomam mu ànd ak sëriñ Mamor Bil moom itam teewal fi Cheikh Mouhamadou ni Muntaxa tey jii ci jataay bi euh, teewin woo xam ne wu rafet la kon sëriñ bi mu ngi sant sëriñ Muntaxa bu baax a baax te di ko wax ne ko itam njaboot gii fi nekk daal alali sëriñ Tuubaa kër kër sëriñ Masamba Kanni képp ku ci bokk alal yi borom Touba nga wax naa ko sëriñ Mamoor bi mu fi ñëwee tey ma ne ko sëñ Massamba ni création sëriñ Touba la ndax jëmm joo xam ne bi mu tollee ci jàng xam-xam sëriñ Touba jàngal na ko xam-xam laataa muy gane àddina woy juróom jébbal na ko borom Touba te loolu seede si sëñ Mamoor Say man mooma ko masoon a wax ne ma dafa laajoon sëñ Abdou Khadir ne ko ndax nit mën naa jébbale njabootam gu ganeegut àddina nee na sëñ Abdou Khadir ne ko ah kay mën naa nekk ndax sëñ Bousso bi defal na ko sëñ Touba kon ñooñee sëriñ Bousso bi jébbale woon muy ay doomam kon mën nañ ne ki njëkk xam borom Touba ba di ko jox njabootam gu gum amagut sëriñ Bousso bi la loolu sëñ Abdou Khadir Mbàkke ko wax njabootam googu nag kenn ci ñoom lañuy ñuy wooteel tey jii muy sëñ Massamba Kanni waaye doyloowut njëbbal googee ko bàyyam jébbale woon ba mu mokkalee alxuraan mu sol dàllam dem ci sëriñ Touba yeesalaat ak jaayanteem ca Mbàkke Bari Jolof booba sëriñ bi demagul ci tukki géej gi nekk foofa di fa tarbiyew ba sëriñ bi yëg ne kii ku war a wutiwaat xam-xam la dolliwaat xam-xamam mu jël ay téere jël sujaata yebal ko ca sëñ Mor Galaay Jaw mu jàngi xam-xam ba mu jàngee xam-xam ba noppi ba sëriñ bi jóge ci tukkib géej gi mu bind ko leetar sëriñ bi woo ko ne ko fekk ma Muritani mu bind ak xasiida gis docteur Xadim si la doon wax léegi demaat salaat ak jaayanteem ci sëñ bi encore kon muy ñetteelu jébbalu bi nga xam ne sëñ Masamba Kanni mi ngi koy yeesalaat ak njëbbalam ci sëriñ Touba ba mu demee ci lay wax naan saraxtu himmati li himmati rijaal wa himmatu rijaali wajhu zil jalaal ci la dem ci sëriñ Touba yeesalaat ak jaayanteem bi mu tollee ci samp kër sëñ bu mag bi sampal ko kër jël soxna ñu di ko wax soxna maram kebe mu jox ko sëriñ sëñ ma Masamba Kanni mu am ci ak njaboot jël soxna itam di soxna bintu silla su ma juumut di way juru bàyyi sëñ cumbuleen buso jox ko sëriñ Masamba Kan kon njaboot yi sëñ ma Kan ni njëkk a am am ci ak njaboot Seexul Xadiim yi moo ko yëkkati jox leen soxna Maram Kebe mooy way juru bàyyi sëñ Maram mi mi meññ sëñ Seexu mii moom sëñ Tuubaa lañ ko tuddee ka ca topp yi di sëñ Dam Buso sëñ Tuubaa la ko tuddee bàyyi sëñ leen Buso ma ca topp yi way juram sëñ Tuubaa ko ko jox kon looloo tax ma ne sëñ ma Kan ni création sëriñ bu mag bi la te ak njaboot tamit fu ñu mën a ne ci kaw suuf alali borom Tuubaa la ñuy doon ba faaw kon loolu na ko ñëpp seede ñu ngi koy seedeel Cheikh Mouhamadou Nil Muntaxa ak mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la njaboote sëriñ bi nee na itam mi ngi sant bu baax sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir loolu yi may wax muy sëñ Masamba Kan yi njabootuk sëñ Masamba Kan yi doon guñ doon alali borom Touba loolu moom ëllëg yowmal xiyaam sëñ Seexum sëñ Abdul Xaadir mooy doon seede si ndax moo yilif kër gi te képp koo xam ne nekkal nga fi seex ma Kan yi ci ron kilifteefu sëriñ moom sëriñ Abdul Xaadir ci ngay nekk ñëw na fii tey ànd ak ñun bis bi ci sëriñ bi yàgg fi lool noppi dem ci sëriñ Seexu mee te at mu jot noonu la koy defee mbooleem fu nit di màggal ci dëkk bi dana fa teg ab ab tànkam seet leen nemmiku leen xool nañuy dundale bis bi kon sëriñ bi mi ngi koy sant di ko gërëm di yeesal ak cantam waaye di yeesal jaayante gi nga xam ne dox na diggante kër sëriñ kan ni ak kër sëriñ Abdul Xaadir kon sëriñ bi ñaari cant yooyu la wax ñu jiital ko ci cant yi nga xam ne nag euh, war nañ koo sant waaye sëriñ bi itam nee na mi ngi sant bu baax a baax itam ki nga xam ne moo fi mag ci njabootuk sëriñ Mbusoobe di sëriñ Mbusoobe Buso Bangaaj sëriñ bi mi ngi koy sant di ko gërëm leetar yi ñuy bind yépp moom lañ ciy jiital ndax moom mooy kilifa ak askanu Mbusoobe muy njabootuk sëriñ Mbusoobe ak njabootuk sëriñ Saa Buso sëriñ bi mi ngi sant baax itam sëriñ Fàllu Buso moom sëriñ Mbàkke Kanni mi nga xam ne moo njaboote kër sëriñ Mbàkke Kanni njaboote kër sëriñ Masàmba Kanni loolu yi leetar yëgle yi ñu defoon ku ko xool da nga ca gis firnde la ndax ñaari kër yi mës doon ñaar genn la masa doon ku ci masa magit yaay boole ñëpp yilif loolu yi mooy dox ba tey jii kon sëriñ bi mu ngi koy sant di ko gërëm ak mbooleem njaboot yi sëriñ bi mi ngi sant itam di gërëm mbooleem mbokk yi nga xam ne teew nañ ci bis bii tey bàyyi koo fu ne xëy na xataayi waxtu bi moo tax jëluñu liste bi lim mbooleem ku fi teew ci ay bokk waaye bu ñu ko waxtu bi mayoon ci ne dinañ jaar ci sa tur euh, sant la gërëm la ci teewaay bi nga xam ne teew nga ko ci bis bi te ànd ko ak ñun bu ko defee kàddu yi nga xam ne moo ci toppaat di ak cant ak soññee jëm ci njaboot bi nga xam ne ñooy njabootu kër ma Masamba Kanni di sët yi waaye di njabootu kër sëriñ Masamba Kanni di ñi nga xam ne euh, kóllëre ak jaayante moo leen boole kër gi te seen diggante ak kër gi di jamonoy Serigne Touba ba léegi te Serigne Touba Xaadimu Rasuul boole woon seen i maam ak sëñ Masamba Kanni ñoom itam ñuy sàmm loola ba tey jii kon sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm li mu leen di sant di leen ci gërëme it mooy li jiitu woon waaye lii ñu toll tey jii jàkka jaa nii di jàkka joo xam ne njabootu kër sëñ Masamba Kanni rek ñoo koy taxaw bis bi daaw lañu tegoon xeer yi booba ba tey jii njaboot gi nga xam ne ñoo aju ci kër gi saa bu ñu liggéeyee ñoom ba war a noppalu ajjuma ajjuma jooju la ñuy jël ñëw fii ci daarul xaddim di tabax jumaa ji ba tey étape bi mu toll bu ñu xoolee li ci demaguñ ci xaalis bu ñu évaluer xaalis def ko xaalis daanaka xaw naa jege ñaar fukki million ci diggante daaw ak ren te par ajjuma dong lañ ciy liggéey liggéeyuñ ci benn bis bu dul ajjuma ni njabootuk sëñ tubaa gi doon tabaxe jumaay tubaa jee daal noonu la ñuy jumaa jumaay sëñ tubaa jii ci daarul xaddim mooy boole sunuy alal sunu xam-xam sunu man mën ñi dooni maçon dooni maçon ñi ci maçon yi dooni maçon bu àjjuma jotee ñoom ñëpp ñu ànd yendu fii bàyyi seeni kër bàyyi noflaayu bi ñu waroon noppalu ci seeni njaboot ñëw fii di liggéey jumaa ji ba tey jii koo ko gis fondation bi mat na ba jumaa jaa ngi yëkkati ko te fondation bi képp bu ñu ba ñu ko évaluer ci plan bi mi ngi nekkoon 17 millions yu ak lu teg maanaam fukki millions ak juróom-ñaar ak lu topp la woon kon njaboot gi nga xam ne ñi ngi taxawee loolu sëriñ bi mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm waaye mi ngi leen di soññ nag ngir ñu gën a feddaliwaat laxasaay yi bañ a bàyyi bañ a tegg sunu tànk te xam ne lii kat mooy li yonent bi sa alayhi wasallam doon wax naan bu nit faatoo ay jëfam dagg na ba mu des ñett benn bi mooy sadaqa jaariya sadaqa jaariya nag mooy lii jël sa xam wala sa man-man wala sa am-am def ko ci néegub yàlla li fi ak ña nga fay julli di fa sëlmal tuyaaba ji di la fekk fa nga nekk même boo fi bàyyi ko kon loolu nañu ci góor góorlu bañ a bàyyi bañ a teggi suñu tànk te góor góorlu ci te xam ne nag mooy liggéey bi nga xam ne moo fi nekk ci kër gi tey jii kon sëriñ bi nee na mu ngi ci soññaat mbokk yépp di ci soññaat mbokki taalibe yépp waaye di ci soññi mbokki jullit yépp nga xam ne dañoo bëgg a def lu baax am na ñu bari ñoo xam ne dañ koo dégg rek jël seeni alal andi fi def ko ci jumaa ji ñooñu it sëriñ bi xam na leen ñoom xam nañ ndax bëgguñu koy wax seen tur ak seeni jëf sëriñ bi mi ngi leen di sant ci jëf jooju di leen gërëm ci taxawaay boobu nga xam ne taxaw nañ ko ci jumaa ji waaye itam di tàllal loxoom yeneen mbokki jullit ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi topp liggéey bi nga xam ne liggéey bi daal fii mu toll mooy ñun ñi ngi ci ku dem ñu dem ku demuti ñu dem àpp nañ ko it fii ba waxtu mu mën a jàppandee lu ñu am danañ ko ci def lu ñu nit joxe danañ ko ko ci defal ba jumaa ji <coughs> kon sëriñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm ci li weesu waaye di leen soññ ci li suñu kanam itam sëriñ bi itam mi ngi sant njabootu boppam gi nga xam ne ñooy daayira Fatxul Mannaan màggal gi ku gis ni mu mel xumb euh, mbooloo mi bari xéewal yi yaatu li ñu ko waajal wàccaay yëpp matul fukki fan ak juróom loolu day wane ne kër sëñ ma Massamba ni li ñuy wax ressource humaine suñ borom def na ko fi kon loolu ñun nañu fexe ba sàmm ko di ko jëmmal saasu ne sëñ Tuubaa moom coful sëñ Massamba Kanni euh, suñu borom coful sëñ Massamba Kane kon ñun bu ñu cof sëñ Massamba Kane sànq ci bëccëg damay tooñ njaboot gi ne leen dama bëgg nekk président de la république laaj réew mi ngeen ne sama ginnaaw ndax gis naa ne kër sëñ Massamba Kane ni man nañ lépp lu ñu def ak lu ñu defut kay moo fi ne waaye mën nañ lépp ku ngeen ngemb dana dem ndax bis bi nii mu mel ni mu riche ñu taxawal ko ci diggante bu gàtt bi ñu ko taxawal jaayante dafay mel ne loolu euh, Pastef la ba sëñ Massamba Kane ni amoon mu nekkaat ci njaboot gi kon sëriñ bi mi ngi leen di soññ yéen itam ngeen gën a góorlu gën a feddali seeni laxasaay ci liggéeyu kër gi ci anam yépp kon dafay mel ne euh, kàddu yi loolu la woon sëriñ bi itam mi ngi sant bu baax presse bi ñi nga xam ne ñooy Tawfekh Production at mu jot mu ànd ak ñun ci liggéey bi njëlbeen gi ba ci mujj gi sëriñ bi sant na leen gërëm leen sëriñ bi mi ngi sant itam euh, Rafa TV ñoom itam at mu jot dañuy ànd ak ñun ci liggéey bi ci njëlbeen gi ba ci mujj gi ci table ronde yi ñu doon def waaye sëriñ bi itam mi ngi sant waa Mbacke Kadior TV moom itam liggéey bu am solo lay def ci màggal gi ak mu màggal gi xewut ñi ngi leen di sant waa Mbacke Kadior TV di leen gërëm ñoom itam euh, di leen sant waaye waa dafay mel ne euh, Mbacke Kadior TV wax naa ko kon ak mbooleem daal presse bi mel ne Almouridiya TV ñoom itam at mu jot ñu ñëw fi tey jii ñëw nañ fi ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di sant itam mbooleem rajo yi lu mel ne jant bi FM nga xam ne at mu jot suñ góor a Njaay ndaanaan day ànd ak ñun liggéey bi ci wàccaayu màggal gi ba ñu agsi ci bis bi sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm euh, bu ñi ngi As-Samadiyya TV itam ñi ngi koy sant di ko gërëm moom borom As-Samadiyya daf maa yónnee woon message sëriñ bi daal ne ma mboolem lu ngeen bëgg ci télé bi mi ngi noonu muy yëgle muy émission muy direct mboolem lu ngeen ci bëgg mi ngi noonu bande annonce bi ñu defaroon dañ ko ko yónnee bopp ba tey jii ñi ngi teg bande annonce boobu gratuitement te laaju ñu ci ab dërëm kon sëriñ bi mi ngi leen di sant waa As-Samadiyya di leen gërëm euh, euh, di leen gërëm bu baax a baax di sant itam sécurité bi nga xam ne mooy xuddaamul xaddim ñoom moom cant gu spécial lañ yeyoo ndax dañ leen a yéex a woo tey jii yéex leen a wax bis bi waaye teewut ñu mobilisé wu suñ mot jób jaww be waroon a teewal boppam waaye am doomi boppam ju muy joxe ba tax tey jii euh, jot gi ma teewu ko waaye élément yi mu fi yebal ñu ngi leen di sant ci suba ba léegi nii ñu taxawee lañ taxawee daanaka bu nit ñëpp lekkee ba noppi sax la ñuy sàcc ab diggante bu gàtt mën a mos dara kon ñi ngi leen di gërëm yéen tam di leen sant ci taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko te di leen euh, euh, ànd ak yéen ngir itam ñu mën a waaj jëmale déwén insha allah taala kon ñi ngi sant bu baax waa daaira xuddaamul xaddim di ko tàmbalee ci kilifa ga di sëriñ Amsatu moom Cheikh Abdoul Ahad moom daf leen a yabal ne leen bis bi ab bisama biñ ko ko yeexee wax mu ne leen lu ñu mën a def éléments yu disponible nañu fexe ba ñu dem ca bis ba ndax bis bi bisama kon ñu ngi koy sant bu baax moom sëriñ Amsatu moom sëriñ euh, Abdul Ahad di sant bu baax itam njabootu waa kër sëñ Yaata Jaañ ñoom sëriñ bi nee na nu sant leen gërëm leen ndax dafa am taxawaay bu am solo boo xam ne dañ koo am ci jumaa gi am ko ci kër gi waaye itam am ko ci taabul ronde bi nga xam ne jëloon nañ ko te joxoon leen ko ñu nangu ko lool accueillir ko lool béggee ko lool taxaw ci taxawaay bu am solo ba njaboot gi dem fa amal fa waxtaan bu am solo àndoon ci ak sëriñ Mbàkke Jóob Xudar kon sëriñ bi mi ngi sant bu baax a baax euh, mi ngi sant bu baax a baax njabootu euh, waa kër sëñ yaatal Jaañ ñoom ñëpp mu ngi leen di gërëm sëriñ bi mi ngi sant itam ni ko njaboot gi defee léegi euh, maire bu Touba wala maire yi bu Touba sëriñ bi mi ngi leen di sant foofu nag bëgg na bëgg naa sëriñ bi fàttali la mbokk moo xam ni sëriñ di Mbàkke lañ koy wax di doomi sëñ naa moom sëñ Abdul Ahad waxtu wi daaw da ko fa fekkoon muy dund man sama maga bi waxtu jubsee mu ne ma màggal gi lépp lu ngeen ci soxla wax ma ko bi ma ko ko waxee mu am ci taxawaay bu am solo boo xam ne amoon na ko ci ci làmpi dëkk bi comme ni ko sëñ Babacar defee danaa ci ñëw ci yooyu nga xam ne sëñ Babacar dafa duble effort yooyu sëñ Sidi taxawoon ci taxawaay bu am solo ren jiit yàlla dogal nekku fi mu wàcce ab liggéey ñu ngi sàkku sëriñ bi nga ñaanal ko te mbooloo mi fi teewi ku ci ne fa nga toog Faatiha ak ñetti lixlaas nga ñaanal ko ko yéene ko yool bi ak mboolem koo xam ne ma nga fam nekk ca barsàq sëriñ bi kon loolu mooy kàdduy cant yi nga xam ne am nañ ko sëriñ bi kon mi ngi sant bu baax a baax mairie bu Touba ak sëriñ baaba kër mbàkke moom sëriñ Njoogu mi nga xam ne moo fay sunu buntu di fa buntu kër sëriñ Abdou Khadir waaye di fa buntu kër sëriñ Massamba Kanni sëriñ bi mi ngi koy sant ndax taxawaay bu am solo la def lii ma doon wax léegi mooy fexe na ba làmp yi dëkk bi ñu yokk ko waaye yabal fi ay wata ñu dugg ci kër yi toppatoo euh, bërëb yi nga xam ne mooy yi jokkaloog wanag yi ñu set setal ko ba mu set taxawaay bu am solo ci kër gi boole ko yëkkati addiya yu am solo di ko joxe ci kër gi kon sëriñ Babacar ñi ngi koy sant di ko gërëm te itam di jaar ci moom di sant maire Abdoul Ahad Ka ci taxawaay bi ndax daaw jéeg ba mu fi taxawut fii laa toogoon wax ko kon ren bu taxawee jëf fii laay toogaat sant ko gërëm ko ci turu sëriñ bi sëriñ bi itam mi ngi sant bu baax a baax istiqaama point com sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñoom itam am nañ ko ci màggal gi ak bi foog naa su ma fàttewul loolu mooy li nga xam ne sëriñ bi waxoon nañu sant ko ci mbooloo mi di sant yi boroom rajo yi ak daayira bu tarxiya bi nga xam ne at mu jot dañuy ànd ak ñun liggéey bi fi may daaneele sama kàddu ci benn minute mooy njabootu kër sëñ Masamba Kanni nañu xam ne li ñu am moo gën or moo gën jamaa lu ñu bëgg bu ñu neexee am ko lu ñu bëgg a taxawal bu ñu neexee taxawal ko fi mu ne nag ñun wane nañ ni lu ñu defut ëllëg ci ñun la waaye buñ ko bëggee def def ko sëñ Masamba Kan yi sëñ Tuubaa da ko cëral ba mu fiy nekk wax nañ ne bokk na ci li mu amoon ci mbooloo ñi nga xam ne matoon nañoo am soxna dong matoon nañ téeméeri nit ñi nga xam ne tolloon nañ ci am soxna ba am ko matoon nañ juróom-ñaar fukki nit ak lu topp ndaw ñee gone yi ak tur tànk yi doog a ñëw loolu nag day mel ni kon cër bu ko sëñ Tuubaa séddale woon njabootu kër gi doog a ñëw kon nañu boolewaat suñu bopp boolewaat suñuy doole boolewaat suñu xam-xam boolewaat suñu mën-mën ba lépp loo xam ne war naa am ci kër gi ñu jëmmal ko fi te bañ kee xaar kenn bañ cee xaar ñenn ndax lu ñu bëgg def ko kon loolu laa ne woon naa ko waxaale mu jëm ci ñun loolu ci ñun la jëm du kàddu yu sëñ bi waaye samay waxi bopp la xëy na maa sob di ko ci dugal waaye wax loo wuj ma ko samay waxi bopp la ngir mu jëm ci ñun ñu góor góorgóorluwaat te xam ne lu ñu bëgg mën nañu koo def fi may daanee la nag mooy sëriñ bi sant bu baax mbokk moo xam ne dafay ñëw tey jii ñu di ko wax Birima màngara sama jëmm jii taxoon koo jóg mu ñëw ba ci yow jóge ba ndakaaru ngir bis bi mën nag nee naa ko sëñ Massamba Kanni dong laa am man sëñ bu mag bi moom dama caa jotewut moo tax jéemu maa wut dara ci moom waaye sëñ sàmb Kanni mi nga xam ne moom la nu booleel moom laa am képp koo xam ne nag bisam tax na laa jóg nga jógee dox lu mat 200 kilomètres nga dox lu mat 200 kilomètres ñëw loolu sedd na suñuy xol euh, gërëm nañ ko sant nañ ko sant itam soxna Ami Mbàkke Dage mi nga xam ne Dage la ca ministère des affaires étrangères moom itam sama jëmm ji taxoon koo ñëw ñu ngi koy sant moom it di ko gërëm ci teewaay bi te di ci am mbégte bu baax a baax sëriñ bi itam nee na nu sant sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci màggal gi yittewoo gi nga xam ne yittewoo na ko bis bi sëriñ bi am na ci mbégte njaboot gi am nañ ci mbégte mbokki taalibe yi ne ci kër gi am nañ ci mbégte kon sëriñ bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñu boroom gën koo dolli ak kàttan ak man mën sëriñ bi mu ngi sant itam sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Suwaybu nga xam ne at mu jot yitam day ànd ak ñun bis bii di ànd ak ñun liggéey bi ngir jàpp ne bis bi bisama sëñ Masamba Kanni kenn ëppalewu ko ci màggal gi màggam màggalam la dëkk bi ab dëkk ma ba tax at mu jot mu ànd ko ak ñun moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm dafa fàtt woon fan yi waaye barki démb rek jot naa euh, soxna jaara ba yëgal ko ne ko nee ko bisam ba ña ca mu ngi noonu moom itam sant nañ ko gërëm ko mu taxaw taxawaay yu am solo euh, ci bis bi di sant bu baax itam waa ahlu café sëriñ bi xëy si nañ fi tey jii muy waa kër soxna maam Isa euh, defar fi ay xéewal ay kafe séddale ko ba mu mat kon ñi ngi koy sant moom soxna maam Isa ak mboolem waa ahlu tafe di leen gërëm xam naa ne guddal naa waaye yaakaar naa loolu mooy li ma sëriñ bi wax la woon bu fekkee fàttewuma dara loolu euh, sëriñ bi laa bëggoon a jottali euh, njaboot gi muy sëtam yi mhm. ak doomam yi taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci kër gi taxawaay bu am solo la waxoon naa ko waaye guddaluma ci woon ndax dama jàppoon ne xëy na daanaka ku def li ko war ba no ba noppi jërul cant gi di gudd mbaa muy bari waaye dañoo am pasteef boo xam ni pasteef bu kawe njort la man dama jàpp ne dañ ko doon ne ci seen maam sëñ Masamba Kanni ci pasteef ba mu amoon ci Serigne Touba ndax sëñ bu mag bi moo ko ko daan seedeel Cheikh Ibrahima Fall daan ko ko seedeel Cheikh Ibrahima Fall ku ñuy wax sëñ Modou Fall Ndiéy kon ci taalibe Cheikh Ibra yi dafa wax ne toog na ci jataayub Cheikh Ibra dégg Cheikh Ibra daan Masamba Kanni ndokk ba muy ndaw bu doon gone te jiituñu ci sëñ bi duñ ci fekk dara pastéef boobu nag daa rogalaan ba topp sa njaboot gi nga xam ne say doom lañ ak say sët yéene ak xol bu ñuy demee ci liggéeyu kër gi ñu bëgg nag kalaame la ak ñoom nga ñaanal leen suñu borom dolli leen ay xéewal ndax wóor na ma ne suñu ko manee lépp lu jëm ci kër gi dinañ ko wàcce seeni kilifa yanul ko seen bopp di ko defal di leen ko defal comme ni ñu ko defee nii daayira bii nga xam ne ak màggal gi nii mu mel nga xam ne dafa gën a dafa gën a dox gën a amélioré loolu seenub liggéey la ñoom ak seen taxawaay ñun biñ ko yore melutoon nii daawut xumbe nii euh, xëy na daawul deme nii waaye ñoom bi mu duggee ci seeni loxo lañ ci gis évaluation bu am solo màggal gi évoluer ko kër gi itam gën koo dox daa daaira bi gën koo dox kon ñu ngi leen di sant waaye di la ko seedeel di la seedeel it seeni jëf di la seedeel seen pasteef ak seen bëgg lu baax ndax ndaw loo xam ne toll na ci mën a solu dàllam dugg ndakaaru mbaamu mu solu dàllam jaar ni dem Nicaragua donte ne ak njàmbaartee tax ña fay dem di fa dem waaye ñoom ñu am lu ñu gëm toog fii di liggéeyal seen maam ci kër gi yàquñu derub kër gi taxawaalu li ñu war a jàng ñi ngi koy jàng loolu bu ñu toogee fii war nañ la koo seedeel muy lu jëm ci gone yi ci góor ñi waaye lu jëm ci soxna yi soxna yi itam ñu di la seedeel nañ ñoo ëpp pasteef sax góor ñi ñoo leen ëpp taxawaay ñoo leen ëpp euh, ñoo leen ëpp pas-pas ci liggéey bi muy say rakki bopp soxna bu Buso moom sëñ dàmm ma nga ne ak njabootuk baay sëñ maram bi ñoom ñëpp a ngi fi waaye say jarbaat ak say doom ñoom soxna moomi yaata ñoom soxna maam am ami jobbe ak seeni doom la ñuy àndal ci liggéey bi def seen daayira def seeni groupe ñooy njëkk a matal góor ñi ñoo leen di ëpp lu ñuy joxe ñoo leen ëpp pësteef te bu màggal gi ñëwee it ñoom ñooy ñëw dugg ci waañ wi togg togg yi jox ko nit ñi moo tax ñu yéex a génn ci baax bi kon loolu itam ñi ngi la koy seedeel gaa ñi nag bu leen ma mere man ci yéen laa bokk waaye soxna yee ñu man wax dëgg yàlla waaw yaakaar naa loolu dina leen neex lool kon kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum kon day mel xamaa ñaan rek mooy bëgg a am na benn foofu du bëgg a def xamaa kon day ni bu jotee ndigal lu dëkk loxo géwël yi kon ñun ñëpp lu seen bi ñaan mbooloo mi sëriñ bi neen fooy toll tàlloo ko amin wax leen amin amin bali ma sàmba ak seex yàlla ndee si déwénul ñëpp kenn bañ a manqué yi aaji yëpp yàlla na faju kenn bañ a bopp bay faju amin ku wopp yàlla na nga wér ku jaaxle yàlla nga tàggoo jaaxle te mun dara ci dara jabaroon Tuubaa amin wér ak wér amin jekk addi ak njël